salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne safoo seen chaîne bi di Saint-Louis TV tey nag euh, dañu jógee ndar dugaat ndar maanaam ñu ngi biir ndar waaye xam moo di bopp coor bu nee bopp am solo la dèjà bëri na li nga xam dafa nekk ci war war a wane donc ñu war a ànd ak équipe technique saint foofu amal am solo donc tuuti di gis lu garaaw lu yéeme li nga xam ne dafa nëbb woon suñu objectif mooy jéem a xool nan la ko génnee fësale ko ba yéen ñi nga xam ne yéen a yéen askan bi ngeen mën ko jàng mën ko gis donc sans plus tarder rek dama ànd sama caméraman yi donc bu ko defee ñu daal di ànd dugg bopp coor génnaat gars yi <laughs> let's go nekk mbirum médecin moo tax ñu tëj amuñu ndox amuñu courant dafay am malade guddi du am lu mu lu mu ko niite ba mën réewle malaat bi wala mu mën faj malade bi xamul na muy def mu mujj ko tëj ñuy dem léegi ba goxu mbaaj daa centre santé bi nekk si goxu mbaaj léegi foofu la ñuy ñëw fa la ñuy fajujee case de santé baa ngi ni kenn toppatoo wuñu amuñu dara nekk kon ay enseignants ñu mun ñëw dëkk. ay mhm. bu ñu dëkkee fii. Mhm. te ñu fi. Mhm. te mënuñu heure bu nekk ñu bëgg a wàcc ñibbi. bëgg xëy si di ñëw. di amee ay saa ñu am gaal saa duñu am gaal. ñu ngi leen ko jox ñu dëkk si. ñu ngi nii. kon tey seen accouchement yi nu muy demee. ku ah. ku kon accouché nu muy demee problème bu métti nañu jànkuwanteel. gis nga man mii di waxanteeg yow. sama doom mi ngi accouché si biir néegam. parce que bu noor bi ñëwee léegi. gaal yëpp dañuy dem nappi. léegi bu gaal yi du ñu am ku leen mën yóbbu pour ñu dem am doom si ndar bu ñu nekkee si mag fii la ñu mujj accoucher ndax du ñu am gaal wala nga téléphoné gaal gi dem nappi bu fekkee amee na portable nga woo ko ni ko mu ñëw balaa muy ñëw malaat bi day sonn am na ñoo xam ne si biir gaal gi la ñu accoucher. est-ce si biir gaal gi la ñu accoucher am na koo xam ne feebar la si yëre boobu ba léegi mi ngi di wéru. jur na si ba saddu jur na ba saddu feebar ngelaw ko duggoon ba léegi feebar boobu moo nekk si moom. Euh, waaw gis ngeen ba léegi ñoo ngi ci euh, reportage bi nga xam ni mënoon na amal fii ci diwaanu boppu Coor donc ñu dugg ci ci armeer bi donc ñu war a waxtaan ak euh, sunu kilifa gi bu defee mu jox ñu quelques éclaircissement ci liñ fi jot a fekk balaa ñuy wax dara ñu lay bàyyi nga nuyoo rek tur bi naka la. waaw asalaamaaleykum maa leen di nuyu bu baax di gërëm si reportage bi ngeen def man maa ngi tudd Badara Diop waaw dëkk fii si dëkk bi si boppu Coor. ok Badara mu mel nii ba nu ñëwee dañ fi fekk léegi léegi benn benn benn tomb. ben bamel donc si luñu ñu jotagum dégg dañ dafa melni ni ki leen fi mujj suul ci ku dëkk ndar est ce mo nga ñëwaat histoire bi. waaw histoire bi man na leen ci wax rek comme lima ma xam comme liñu suñu parents yi netali parce que man kii sama papa wax na ma ci dara neena na bi mom lañu mujj suul fi si bop cior wa si ku dëkk ndar ci ku dëkk ndar parce que wa ndar fi mo doon sen armel mom mo jiitu armel li nek ndar yop bop cior gi mo leen jiitu. fii lañ daan denc waaye armeel bi mooy armel buñ fi mujj a denc si waa Ndar. kii moo tudd. kii mi nga tudd Nduuda. Nduuda waaw. Nduuda la tudd moom donc mu mel aussi am na ñeneen ñoo xam ne ci ay kilifa denc nañ leen fii nii ku si mel ne est-ce que mën nga nu limal ay tur. waaw xam naa si ku ñuy wax ay Niina Fall. waaw fii lañ ko denc. Mhm. du sekk buñ muxdaat. Mhm. fii lañ ko denc. Mhm. xaar yàlla fii lañ ko denc si dëkk xaar yàlla bi gars yi di way xaar yàlla bopp coor xaar yàlla bi ñuy way parce que ñu bari dañuy dégg turu bopp coor tur bi rek la ñuy dégg mais xamuñu bopp coor exact fan la nekk mais fii ñu taxaw tey jii fii mooy bopp coor armeel yi si la ñu nekk nii suuf si mooy suuf bopp coor mais tur bi nag siiw na ba ñu bari di ko dégg rek mais xamuñu exactement fan la mais tey jii fii ngeen ñëw fii mooy bopp coor donc mën nañ gis euh, fi nga xam fa lañ denc xaar yàlla waaw tomb bi exactement mënu leen ko gis mais mën naa leen yóbbu si béréb bi fu mu nekk ñu dem waaw loolu ñu jànkonteel métti na doy na waar seen problème mu ndox mi aussi problème ndox mi nag noonu la méttee noonu la méttee parce bu nawetee moom dañuy mel naka ku nekk si capital waaye bu noor bi xasee ba ñëw pour ñu naan sax problème gaal gi moo lay duyeel gaal gi moom mooy nappi si dex gi moom mooy duy mooy yóbbu maladie mooy yóbbu ñeen dugg xam nga loolu dafa metti mhm. xale bi day dem jàngi nga soxla ndox doo am ndox di xaar gaal gi ba heure bu jigéen ndaw te robinet bi saa mu tëj saa du tëj robinet bi boo saa da ngay dem fekk robinet bi tëj nga soxla ndox doo am ndox nga xaar ba heure bu robinet bi tijjee nga soog a am di duy quelque bidon indi ko soo ñëwee si ngay togg añ xale bi day wàcc école sax war añ ñu am ndox mu ñu toggee añ xale bi noonu la nga jëndali ko mburu wala nga koy jox ay biscuit yu kenn xamul pour mu nax naxal ko mu dem jàngi ba 5 heures mu wàcc ngay soog am di am loo toggee añ yekk sa añ xale yi lekk ñun ñëpp fii la ñu jaar xale yi yëpp fii la jaar metti la ñu jànkoonteel si boobu jom yéen yéen tey jii seen problème mu dëgg dëgg dëgg yi xamante ni soxla ngeen ñu saafara leen ko daar daar lan la suñu problème dëgg dëgg dëgg dëgg li si jëkk jëkk jëkk mooy ndox ku nekk xam na ni ndox fu mu nekkul fu nekk foofu jàmm am fa mm-hmm. parce que ndox moo amee wér gu yaram ndox mooy dundal nit soo toggee ndox la soo sangoo ndox la sa ay doom bu nekkee si jàmm ndox la ndox moo amee suñu lépp bu ñu amulee ndox fu ñu jëm sonn nañ ci problème ndox dañu sonn ci ndox sonn nañ ci ndox bi ko ñaareel amuñu électricité su guddee mu ne lëndëm say ay doom bu ñu wàccee 5 heures ci nga leen di taaj ñu leen ñëw leen ngeen jàng seen ay leçon ak seen ay devoir bu timis passé tuuti mu xaw lëndëm gën leen tëdd leen parce que amuñu làmp sareel la ñu am saa batterie bi day jeex lamp yu fay balaa ngay toppatoowaat batterie dafay yàgg amuñu ko bi ko ñaareel case de santé bi wax naa leen li nekk mhm. école ba moom bu ñu àggee moom daa ngeen gis moom problème ba fa nekk moom bu ngeen demee ba école ba nekk yëpp donc donc donc fii nii am na ci ay kilifa yu bëri yoo xam ni euh, bu ñu xoolee ba ci biir ci histoire ñu ngi fii ñu ngi fi ñu denc waaw fii ay kilifa yu bare ñoo ngi fi ñu denc mais comme ça que ñun ay xaleel lañu te dañu gaaw a génn tukki mhm. moo tax histoire yu bare rëcc nañu mhm. ba lu ci bare ñun mënuñu ko ne maanaam suñu mag ñi mom amna luñu lu ñu ne si jot nañu ñew xamnañ ko ci te liñ si xamal si ñëw daal ko wax. inshallah allah donc gaay gis ngeen ah ngeen top nu ñoo ngi ñoo ci armée bi ba léegi ñoo ngi ci armée bi ba ah <laughs> donc mu fi ni mom déjà ndox la. waye fi yépp ci armée bi la bok parce que dak yi ngeen di gis ni garab la ko tuddu Dakar Dakar bi, jamono bi ñuy nek xalel da mi ngi nekkoon si kaw si suuf si la nekkoon laalul woon ndox mi dañ dañ daan jaar si gannaawam nale yëpp mu nekk suuf ñu ñëw fi di wat daqaar waaw loolu ñun fekk nañ ka bu baax nekk ay xaleel mais comme dex gi day lekk rek di ñëw dex gi moo lekk moo lekk daqaar gi nii ba daaneel ko nii si biir dex gi waaw béréb bu dex bii sax comme ñooñu ma la tuddal léegi mhm. am na ñu bari ñu wax ni maanaam armeel yooyu fii la ñu nekk ku mel ne euh, xaar yàlla boobu ak ay Nina Fall ñooñu ñu bare wax nañu daxar gii mhm. si suufa daxar gi lañ leen denc parce que ah, ñun si waaw léegi ñoom seen armée léegi dex gi lekk naka waaw waaw dex gi lekk naka moo tax daxar gis nga mu daaru nii si biir dex gi hmm. waaw mu mel ni kon mun ñu wax histoire histoire ndar te duñ duñ tudd boppu coor déedéet kenn mënul wax histoire ndar te duñ tudd boppu parce que boppu coor moom moo giitu ndar

déedéet gisaguñu benn autorité bu ñëw jàppale ñu waaw fii ñun lépp loo xamante ne si am nañ ko rek ñun ñoo ko jëmal ñu bopp moo tax dañu sonn trop dañu sonn trop parce que état amul lenn loo xam ne rek def na ko fii moo tax gis nga dëkk bi ni mu mel fekkaloo fi kenn ñëpp nga Mauritanie man mii di wax a yow tey jii maa nga Mauritanie ak sama njaboot yëpp ñoo ngi foofu parce que fii ñu fi ñëw ndax bu ñu fi ñëwee coono yi ñu fay jànkonteel te paré ko que la mais bëri na ñu naan carrément que parfois bop coor euh, dañ naan ñu Ndar bokku ñu Sénégal bu nu bu nu déggee wax ci lu bëri bëri naan ñom mortel lañu bokk pourquoi ngeen <laughs> choisir ñu mortel ngeen bokk. wa parce que ñun dañu nekk ñun ñoy dëkk bi nga xamante si mhm. ñun ñoo mujj fi ci Ndar ci ci frontière bi benn dëkk ci Sénégal fété wuñu mortani ñun ñoo sës rek ci frontière bi donc kon nak buñu Sénégal mënul défal dara dañuy génn dem mortani pour liggéey. waaw doomu dëkk bi li ñuy bare di dem Mauritanie di liggéey loolu moo tax ñuy wax ni ñii Mauritanie la ñu bokk mais déedéet fii la ñu bokk ci Sénégal mais Sénégal si boppam bi ñu dëkk moom moo deful benn effort pour ñun ba nga xamante ne ci daañu mën toog fii ba ñu xam ne ñun ñii ay sénégalais lañu. ok donc ngeen bokk aussi di Gandiol ndax euh, bu nu bu ne bu ne bopp coor ñu ni Gandon autant pour moi ñu ni Gandon ngeen bokk euh, est-ce que aussi tamit meeru Gandon bi ñëw na fii. gis situation bi aussi taxaw seen bëgg-bëgg war a wax leen li nga xamni ñu na taxaw dala seen xel ci ci seen ay bëgg-bëgg. waaw meru Gàndak moom ñëw na fi mom ñëw na fii dëkk bi waye tamit ñëw bu fi ñëw yëpp te taxul suñu aaja faju parce que defaluñu lenn tay jël lo xamanteni ci man nañu wax ni bi defal nañ ko ba nga xamanteni ci gis nañu suñu bop bu baax. parce que tay fi tay ji liñu fi liñu gis dal nga xamni ne meeru defal ñu ko dal indi nañu fi ben gal ak ben moteur. comme xale bu si yéegee néeg bu suruxee si biir du am problème. nga toiture gis nga ni muy fàqe nii daanu nii si suuf kii léegi bu ko liggéeyulee avant école di tijji bu école bi tijjee léegi xale yi dugg si fii mu daanu seen kaw nu muy mel day metti day métti ndax dëkk bi na métti di koo xam ne léegi amuloo dem naan yaa ngi faju jee am looy faje ji sa xale sa doom lii bu fàqee daanu seen kaw fu ñu jëm léegi ku ñu yaakaar pour mu defaral ñu ko dul ñun waa dëkk bi ñun ñooy mujj boole suñu doole ak suñu xalaat ak suñu xam-xam dem wuti suñu matériel bopp ñëw di ko liggéey ñu jóge si loolu ñëw si classe bi benn classe ñaari salle de classe lañ ko def ñaari salle ñaari ki ñoo fee jàng léegi benn côté bi benn côté ñii dañuy féete nii ñii féete nii si benn classe bi jàngi bu du normal xale bu su wàccee léegi soo ko waxee mënuñ ñoom buñ dee suivre dañuy bàyyi xel ñi si nekk seen ginnaaw dañuy bàyyi xel ñi nekk seen ginnaaw est-ce que loolu normal benn classe benn salle de classe ñaari kii bëgg fi jàng ñaari classe bëgg fi jàng loolu normalul ñi si kanam dañuy bàyyi xel ñi si gannaaw kon seen jàng du mën a normal école bopp coori ngi ni dara baaxu si amuñu ndox amuñu toilette amuñu euh, euh, électricité amuñu dara ñu ngi nii daal amuñu dara bopp coor daal dara nekku fi dara sonn nañu élèves yi sonn nañu président parent élèves yi sonn na directeur bi sonn na ndax directeur bi amul fu mu tàllal loxoom dem na ba France di tàllal loxoom di ñaani te dëkk si dëkk bi ñu war leen jàppale ni ñuy jàppalee ñeneen ñi ay citoyen lañ si dëkk bi la ñu bokk Macky Sall nañu gestu nañu gestu xam ne si dëkk bi la bokk dañuy wote dañuy amee suñuy njaboot dañuy wote lu ñu lu am dañuy fay impôt dañuy def lépp lu am suñu loxo ngi si biir kon nag dañu bokk si dëkk bi dañuy war dimbale bu baax si dëkk bi nañu jàppale si dëkk bi sonn nañu bopp coor sonn nañu laa mën wax bopp coor dëkk bu ñuy wax village bopp coor zéro mètre ak goxu mbaaj sonn nañu du ndox du courant du e, salle de classe yu baax du douche yu baax du dara lu ñu am du case de santé bu baax du dara lu ñu am bis bi yàlla gaal gi day dem duyeli benn kër tey bu ëllëgee mu dem duyeli benn kër balaa muy mat ñee daanu jeexal mu dem kee duy sax dafay dem ba découragé day sonn dafay sonn te essence bi kenn du ko maye kenn du ko def da nga koy jëndi da nga koy jëndi ubbil nañu robinet sa ndar weer wu dañuy fay facture facture boobu ngay fay facture delluwaat fayaat essence jëndiwaat essence mu yóbbu la ba ngay jëndiwaat ndox mi di ko indiwaat fii dafa metti bidon 100 francs dafa metti bidon ndox 100 la ñuy jënde heure bu ne moom la ñuy jënde dafa metti benn bidon ndox 100 francs toggal la añ daa gis jigéen gi togg añ ba pare war sangu du sangu la mu waroon sangoo mu sange ko ay doomam yay jàngi moom mu toog sa kër ga metti na loolu la dal man wax ci lo xamante ci amal nañu dal touti ndariñ ci problème courant bek ndox bi nak problème courant bek ndox bi mom comme sank fi nga jaar ci maire bi wax na rek gis nga man mi ngay gis ni boo bokk na ci ñu gëna touti te fi ma gis ni amna 45 ans hmm. waaw booba ba légui dama juddu fekk ñuy joy courant ak ndox. mais mosul dox ba indi projet bi nga xamni projet courant la wala projet ndox. mosaguma ko gis wala mosaguma ko deg ñu ne ki indil nañ leen ko projet bi tegal ñuko Eh, ana sangam wala ana sangam bu soobee yàlla dana sotti man gisaguma loolu. seen dëkkandoo ñu si mel tey bu ne dëkkandoo mooy Saint-Louis tey euh, maire bi Mansour Faye moom mosu fi yónnee wala mu ñëw fi même bu sax yéen bokk bokk leen ci commune commune am mais mu yónnee fi ñëw taxaw leen en tant que dëkkandoo tamit mosu leen ko gis wala mosu leen fa dem. déedéet man loolu ko gisuma ko xëy na donc naa am du ma amul waaye bu fekkente ne si am na tamit siiwul parce que man comme dëkk bi si bare damay faral di nekk Mauritanie. loolu moo tax xëy na loolu mën na am te duma ma ko yëg waaye daal yëgaguma te léegi yaakaar naa ne information bu amee ñëpp dañ ko jot yëgaguma daal ñu ni Mansour fay yónnee na bopp coor wax si seen problème ni nangam ak nangam boo xamante ne si dana dalal suñu xel ñu yaakaar ne ñun kom maanaam jafe-jafe bi ñu am si wàllu courant ak ndox dinañ ko mën a am te li gën a metti li ñu gën a metti dëgg dëgg dëgg gën nekk suñu jafe-jafe mooy courant ak ndox parce que bu dee yoon bi dem ak dikk di la si ndox la ñu dëkk waaye am nañ ay gaal yoo xam ni heure bu ñu bëggee jàll daañu jàll bu ñu bëggee dem ñëw mais suñu problème mooy courant ak ndox moom suuf su ndox nag parce que léegi gis nga dex gi dafa neex. léegi problème ndox bi lan la da ngeen da ngeen da ngeen ñoom dañ leen mënul jox forage wala ndox bi amul fii accès maanaam la mooy problème bi ba tax yéen leen am ndox depuis boobu ba léegi pendant yaa ngi a ndaw donc yaa wax yaa n'est-ce pas 45 ans te ba légui ba nga juddoo ba légui ni nga fekk dëkk mel walu ndox boobu lan la ñom est-ce que wax nañ leen li nga xamni mo wara tax ngeen mëna am xelu dégg lolu xamni li kat nit ku ne ci teg loxo déedéet waxuñu waxuñu lenn lo xamante ne si waaw lo xam man mën na war a mën nañu dégg ni li moñu téré am ndox hmm. waaw lo xam ne ñu takk suñu loxo ni yeen li mo tax mëna leen am ndox lolu waxuñu ko manam dañu jappalé wul rek waye dekk bi jage na ndar jage ndar go xamanteni si jage na si ndox mi jage go xamanteni si buñu jappale tout rek ñu am ndox ta ndox mo gëna nekk suñu jafe-jafe période bi nga ñëwé fi gis nga dex bi mi ngi ni dafa neex légui mëna def lu bare parce que ndox bi légui amul xoram mais ndox bi day dem légui heure mu jeex mu dem ndox bu am xoram bi ñëw bu ko defé ndox bu dootul man def dara dootul man sangu dootul man nan dootul man foot dootul man togg il faut nga jël ay bidon 20 litres sarsi ci gal gi dem fi di ndar du beron yoyu indi ko fi soga di ko mën consommé waaw parfois doo am gal ah, parce que instant da fay fekk ni benn ñi fi nekkone nga xamanteni si ñoom ñoo daan yore gaal yi ñu si bare dañuy dem ba nga xamanteni si da ngay gis ko xamni da fay manke ndox ci kërëm sax mais pour mu am gal bu nga xamante dem sarse beron yi pour indi ko ndox sax do am loolu donc léegi ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñoo leen déglu autorité yëpp bu ko defee ñu mun déglu message bi nga xam du day wouté nak message bi daan jaar parce que tamit yeen tamit yeen nga jël sen responsabilité ndaxte dëkk bu melni euh il melni donc ku nekk bëgg na bëgg na fi ñëw parce que machallah ni mu bindo yeen ñi nga xam yeen fi nekk tamit fa nga jël sen responsabilité ci ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, ñoom ñooy kilifa euh, gox bii nii loo xam ne day jógee ci yeen dal ci ñom ñi xam tamit ñi jot nañu jël sen responsabilité parce que bu dé ñom sa yoon fi ñëwé wax ak yeen euh, dem seen yoon après par nañ ci bu ñu soxlaaté leneen ñëwaat élection yi ñëw ku nekk ñëwaat fi wax wax après ñu demaat amul sens lu soxla moy que ñi ñëw jappalé leen déjà bop cior bu né bop cior problème yi am bërna ndox bi dé ngeen sànq wax nañ ko courant bi bu ñu feebaree parfois pour ñu mëna kité fi dem problème la case de bi fi nekkoon sax da ko mu tegg jox ko enseignant yi fi nekkoon parce que amuñu ndox bu ñu bu ñu naan problème bi li dundé bërna donc yéen ñi nga xam ne yéen ay autorités yi ñoo ngi leen di ñaan euh bu fekkee wa gandong la ñoo ngi leen di ñaan ngeen jéem a ñëw jàppale ñii parce que tamit ci ndar lañu bokk ndar lañu dëkk te lii nii na trop am nga ñoo xam ne dèjà boobu ba léegi depuis des des des années mu ñu fexe ba am ndox mu ñu fexe ba am courant te ñoom ay nit lañu dañuy soxla parfois seen bopp donc tey bu ñu la doon bàyyi nga lancer message bi nga xam ne message bu bu dal lay doon ci ñi nga xam ne ñoo lay seetaan muy autorité yi aussi tamit nga xamal askan bi exactement la moo fi nekk ba ñoom ñu xam ne kat bopp coor li fi nekk waaw message moom xanaa ñu lancer tika rek waaye yàgg nañ koy lancé waaw mais nag du doy parce que ñun fekk li nga xamante ne si ñoo ngi koy wut amuñu ko rek du ñu tay mukk waaw ñun gouvernement bi xam na jafe-jafe yi nga xamante ne si moom moo nekk fii képp koo xamante ne si nekk nga ndar rek xam nga jafe-jafe yi nga xam ni bopp coor moom lay dund maire bi fi nekk di Mansour fay xam na jafe-jafe yi bopp coor di dund loolu xam nañ ko mais nag bu élection jotee. daa gis ñu nekk daa daañu def effort pour ñëw maanaam seen wàllu politique. ñu fi ñëw si élection yi. am na ñoo xamante ne si ñëw nañ fi mais instant boobu bi ñu fay ñëw man instant boobu fekkuma fi. ah waaw waa Gandon ñoo fi ñëw si élection yi waaw waa Gandon ñoom ñoo fi ñëw chaque élection bu jotee daañu ñëw fii waxtaan ak waa dëkk bi si wàllu élection yi waaw chaque élection yi jot nag daañu fiy ñëw mais nag noonu moom loolu la ñu continuer parce que loolu yàgg na di fa am hmm. waaw moo tax kon message bi dañ koy jàlleeti rek mais yàgg na jàll waaw yaakaar naa ni fekk li nga xamante ne si ñun ñoo ngi kaa wut amuñu ko du ñu tayyi mukk parce que ñun dund gu méttee méttee métti moom la ñuy dund fii rawatina problème mu ndox ak courant ndax ku nekk xam na ne jamono bi ñu toll nii nii nii nii année deux mille vingt ngay dund ba année deux mille vingt mënuloo am courant mënuloo am ndox ku nekk xam na ne loolu yow yaa ngi dund jafe-jafe gu méttee méttee métti ah ah waaw li ñu leen di lancé nag mooy ñun du ñu tayyi du ñu bàyyi dañ leen wax ne leen ñun ay sénégalais lañu. te si dëkk bi la ñu bokk nañu ñëw jàppale ñu ñu am ndox am courant di gis suñu bopp comme ni yeneen seetu waaye di gisee seen bopp si fii si bopp Thior. ok ngi lay jaajëfal bu baax baax. waaw aywa maa leen maa leen di nuyu baax yéen ñi nga xam ne ñëw ngeen fii waaw ñëw seet si ñu maa leen di gërëm bu baax di leen sant parce que seen reportage bi ngeen def am na solo lool mm-hmm. waaw. yaa na yàlla defal jàmm te jëmaleen sa kanam kanam. donc mbokk gis ngeen ko gisandoo léegi dem nañu ànd ak léeg-léeg suñu yaay booy ñu daal dugg ci euh, école bi war na leen li fa nekk yëpp wax nañu ci santé bi wax nañu ci li nga xam ne moo di courant yi wax nañu ci li nga xam moo di ndox yi wax lépp li nga xam ne rek euh, war nañu ci mën a wax donc yéen ñi nga xam ne nag yéen autorité yi li ñuy def nii def ñu ko pour dara dañ ko def rek ngir xamal leen carrément que liggéey bi suñu liggéey la ñun lu nu mën amuñu doole bi ñu defee mais lu nu am mooy suñu micro bii donc lu nu war mooy jël ko ñëw jéem a xool nan lañ koy dévoiler ba yéen ñi nga xam ne yéen responsable ngeen mën ci dégg li ñu ci li ñu ci wut nag lenn a nga ñoo di habitant boppu Thiori sonn nañ trop parce que neexul tamit parfois nga nga am malaat war a jóge fii dem ba ba ba ndar parfois dégg noonu sax seen euh, ñi nga xam ne dañuy am dañuy wës dañuy ëmb ci gàlle yi wësine donc loolu tamit problème la dégg na ñi nga xam ne tamit parfois dañuy faral di euh, jël seen abonnement yi di fay gaal 7000 francs par mois pour que seen doom di mën a jàng di ñëwaat te loolu boo amee doom ji nga xam ne ay 4 5 la da la mun fayal ñoom ñëpp parce que day bëree donc li ñuy wax nag mooy que ngeen a jàppale leen si la mooy yéem a li nga xam ni moom mooy cri de cœur xam ni waa bopp coor ñu ngi koy ñu ngi koy seen combat su ngeen si jàppee seen combat la donc jàppaleen si bu ko defee rek daan yooyu liggéey bu baax a baax di gërëm Mandiaye bu baax a baax moom mi nga xam moo nekkoon ci cadrage bi di gërëm ki nga xam moo di Weuz Fatou Weuz di euh, euh, euh, ak Gaas Ngagne donc ñëpp ñi xam ñoon ñoo ñoon topp liggéey bi rek ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax donc duñu yem fii fépp foo xam ne war nañ fa dugg pour mën a leeral lu bëre daan fa dugg leeral lu bëre parce que duñu fii kese am na yeneen yi nga xam ñoo ngi koy waajal Saint-Louis TV saa su nekk day ñëw ak doole jaa ngeen jëf